Assalamualaikum, assalamualaikum. yéen sama mbokk yi yéen sama mbokki Touba yi maa ngi leen nuyu bu baax di leen sant tey damaa bëggoon a ñëw rek indi benn affaire boo xam ne si affaire bu danger la yéen a ngi gis li may jàkkaar lool poto la boo tali bi la ci tali bi la tali bi ñu ko defee léegi tol na ci ay mois libéré nan tali bi auto yaa ngi jàll gi gis nga ko filu haute la auto yaa ngi jàll te poto bi ci digg tali bi la nek en même temps dafa nek ci jàkkaarloog ben mbedd bo xamné ci si kay la ma doon lancé nag defuma pour dara du pour ñaawal du pour saboter du pour dara gis nga auto yaa ni di jall may lancer autorité yi ci dëkk bi ak ñi nga xam ñoom la señ bi dénk dëkk bi ñu gis ko pour man cee sàkk ay pexe bala ci dara di xew ndax kenn ku nekk xam na ne fii doxalin wi ak maam dawalin wi ak doxalin wi dese naa sell poto bu mel nii nga xam ne poto haute la nga bàyyi ko ci digg tali bi ah maanaam mu nekk fi di kaabal boo xam ne si bu daggoon maara day yem si lu ne mën na ci xew Sénégal nag dañoo tàmm uh, fii ak dara amul rek duñ ci wax waaye nag am na loo xam ne si il faut nga wax ci ci teel gis ngeen poto baa ngi nii gis ngeen ci digg tali bi la nekk ci kaw tali bi la nekk te tali bi mu paree yàgg na libéré nañ tali bi te mënuñoo fexe maam ba dindi poto bi maa ngi ñaan lillahi wa rasulihi autorité yi ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi dénk tal dénk dëkk bi ñu wax ci poto bi ñu dindi ko fi bala mu fi indi jëye waaw poto bi mën na fi indi jëye joo xam ne gis nga fii la jàkkaar lool mën na fi indi jëye joo xam ne si maam nit xamul fan lay àkke ji te oto yi dañuy jàll di dem ak ñëw waaw maa ngi koy ñaan yàlla rek di ñaan képp koo xam ne si maam gis nga gis nga gis nga poto bii ci digg tali bi nekk ci kaw tali bi nekk da nga mën koo jot li ñi nga xam ne si moo xam waa Sénélec la moo xam autorité yi ñi nga xam ne si ñoo ŋànk gis nga fii la jëm ñi nga xam ne si ñoo ŋànk dëkk bi nga mën leen ko jot nga jot leen ko lillahi wa rasulihi ñu ñëw dindi poto bi sensé ko dindi ko ci kaw tali bi nek ndax fi wóorul te lu ne man na fe xew wa ñoo ngi leen koy ñaan lillahi wa rasulih ngeen japp lañ ci ñun ñi fi dëkk ci danger la nek parce que chaque en un moment camion yi guddi dañuy daw fu ne lu ne dafi daw guddi gi te man nañoo dem ba lu ne man na ci xew te gis nga fil bi rotation la moy fil bi nga xam ne moy jëm forage ndamaatu mo alimenté forage ndamaatu mo jóge ni ci ki bi ba subaa gi nii foofu la jóge fil rotation bi ci la jógee jëm alimenté forage bu ndaamaatu waaw mi ngi nekk ci deuxième robinet la nekk waaw 30 bi doyet bi deuxième robinet foofu la nekk lii daal moom bëggoon naa maam nit ñi ñu xool ci ñuy xool ci def ci njàngat waxtaan ci ñu dindi fi poto bi lillaahi wa rasuuli